Baol Times wër na Sénégal ba mel ni élection région département commune ñëpp a ko voté. salaam salaam mbokku bi TV gars yi ñuy suivre à ce moment Manzo Kile la ñu gën ko xam léegi si King Manzo maa leen di siyaar. waa d' abord maa ngi félicité Kaagu mi initié ni projet boobu noonu. mun naa ne moom moo tax ma sóobu si biir projet parce que avant projet bi man ak moom bo yàgg nañ yàgg nañ tourné ay émission yàgg nañ dund ay bagages yu bëri lien d'amitié boobu noonu fa la affaire yëpp commencer après ba mu amee benn projet ni day def benn saay fa pour regrouper jeunes talents Diourbellois yi euh, pour ñu mun a participer si projet boobu noonu parce que dina am lu leen apporter seen carrière parce que tey compétition boobu noonu tey boo ko dina am beneen niveau bu mu la mën a yóbbu yow sa biographie say démarche et tout loolu bokk na si lu ma gën a motiver mu bokk si projet boobu pour appuyer aussi man sama soutien li mu si mën a appuyer à travers Manzo Music moo mu motivé ma bokk si projet boobu noonu pour aussi participer si man si développement au niveau de la culture fii di Diourbel si mu domaine moo tax moo gën a yokk tax ma dugg si. début boobu léegi nag man li ñu ma waxoon yëpp man maa ngi koy gis quoi vraiment parce que bon jóge na si quart de finale yi dem si demi finale yi yàlla def tey 21 décembre ñu war a dem si finale yi. te gars yi lépp luñ leen promettre woon si début booba moment bii nii ñu ngi koy gis kon boog man maa ngi confiance ba léegi nii ko lool noonu ñoom ñu ngi koy respecté ba après concours bi aussi prix yi ñu di gars aussi nañ ko respecté gëm naa lool man. gars yi xam avant Baol Street Fighter Baol Street Cypher Mansour ak Kaaguloo ba pare quoi lien am na ba pare du mës deñ tey kaagu lépp lu mu mën a woo muy si hip hop muy si culture man su ma si mënee jàpp dama si ñëw jàpp su ko parce que man si branche boobu laay yëngatu te bëgg naa aussi rap Diourbel développé te loolu noonu si lu koy yëkkati si la bokk man moo tax à chaque fois bu ma si woowee damay am envie ñëw si appuyer ko participer si gunge ko si ba li mu bëgg am ko si. ah comme d'avant comme d'hab parce que bon. avant dara man artiste la après artiste la nekk ingénieur du son ubbi sama studio pour nekk kon ni ma doon ñëwee si concert yi laa fay ñëwee en tant que King Manzo ñëw fa aussi en tant que partenaire si avec Manzo Musique sama label noonu lay demee rek. ah di jox gars yi rendez le 21 décembre théâtre de verdure bu ko gars yëpp ku ne na ñëw surtout maa ñuy support seen artiste nañ ñëw jàppale ko parce que aussi public bi day compter quoi talent bi da siy bokk. public bi da siy bokk kon na gars yi yëpp ñëw jàpp si vraiment appuyer ko parce que projet buy neexal rap Diourbel la genre projet yu bëri fi kon tey bu benn nit amee fit bi teg ko fi gars yëpp dañu war a ñëw jàpp si pour mu nekk réussite totale ba déwén tey bu ko bëggee def am motivation bu ko si a def loo ko King Manzo woon maa leen di ziar jaajëf respect. Baol Times wër na Sénégal ba mel élection région département commune ñëpp ko voté